dikkati naa ñaan géeg yëg-yëg gi ni ki tey benn la stade yéen i kaay naan maan mooy qualifié ni ki tey ci ngoon record yéen i naan kon gisuñu lenn lu dul qualification bi tribune sport naan kon en tey ñaari kuy nañ bokk mbalka ñaari gaynde daal di jàkkaarloo daal di daje yéen i kaay sport des médias bi naan koon ku ne ci ñaari gaynde yi dina jéem a marqué territoire am ku ci nekk it bëgg gagné qualifié waaye tam wane ni fii maa fii buur ni fi faax le quotidien le quotidien naan kon ñaari gaynde yu xiifante daje nan waaye sud quotidien naan kon choc lion tey laas naan kon duel des lions kay l'observateur naan kon en tout cas ndam lu rëy la ñu bëgg le soleil yéene kaay naan kon te Sénégal pare na ngir def ko Dakar Times naan kon yomb na attaqué koñe gagné bés bi le jour naan kon songu daan diggante Rigobert ak gayndeem bi kun ca jot jël l'observateur naan kon diggante Sénégal ak Cameroun tey ci ngoon la 17 bu jotee ñuy xaar Sadio Mané yeewu niki tey ñaari gardien yi addina daanaka gën a tudd Onana ak Mendy wala jàkkaarloo diggante ci moom akub jaune yéen i kaay futur média bi nan man diggante Sénégal ak Cameroun fàttaliku leen ana ba 90 but bi gën a rëy ci carrière Mamadou Diallo diggante Sénégal ak Cameroun fàttaliku leen ci Dakar 92 xeex bu metti ba kurpañante di dalee fu ne diggante Sénégal ak Cameroun fàttaliku leen ci Bamako 2002 metsu ak daw fi taw yi nga xam ne ñoo waroon dóor penalty bi def nañ ko diggante Sénégal ak Cameroun yéen kaay bi nan man fàttaliku leen ca jëfu Xaadim Njaay ba fii ci Ndakaaru waaye tam fàttaliku ci jooyub Sadio Sadio Mané ca Franceville Le Soleil yéen kaay naan kon tey sunu gaynde yi pare nan de Aliou Cissé ni ki démb ci tàggatu gi wane na ko ñuy xaar nag ndam loo xam ne Sénégal gépp ngi toogandoo di ko xaar ngir qualification bi Tribune Sport naan kon Côte d'Ivoire mi woote ndaje ma ñàkk na ni ki démb diggam ak Nigéria Égypte daal di témboo ak Ghana Guinée équatoriale jege quart de finale ndax ndam lu rey 4-2 bi nga xam ne am na ko demb ci Guinée Bissau yéen kaay sport des médias bi man kan baa ngay rëkk ca Côte d'Ivoire Tribune naan kon politique baa ngi rëkkit fii ci réew mi ñu war a jëm ñun Sénégal fii ak lu matul daanaka ñaari weer ci élection présidentielle boo xam ne bankub loxo daal dana ca bari walla ndax sénégalais yi ci boppam ñoo dem ba mel ni ñu jéppi nag fi mu ne politiciens yi yéen kaay bi naan maan ay tension politique yoo xam ne daal dinay bari ci réew mi jokkoor maa jor jokkoor leel tamante xasante waxante lu ñaaw diw moom ma def diw deful dañu ko piégé piégé wuñ ko coow li mel ni tulleeg maale ci réew mi jàmm jeex ci réew mi lépp nag wàllu politique daal koy waral lii nag mën naa tax sénégalais yi ci boppam bu su jaralul leen dara te gis nga toggoogee mënee naa firndeel ne démocratie ñàkk na ci réewum Sénégal turbine naan maan beneen njàngata ngi di ndax coow li mooy élection yoo xam ne fas nañ ci soobu élection yoo xam ne dara yombul lépp ngi jaxasoo laaj ba samp kay mooy ndax élection dina am am du am l'enquête ko dañee naan maan loolu de fi mu toll nii moo xaajal opposition bi bennum xaaja nga naan na am beneen xaaj naan nañu xaar ba jant fenk bés neex ndax fi mu ne ni mu jaxasoowee ndii doy na waar Maodo Malick Mbaye ci l'observateur naan téemalee naa jubóole kaay leen ma comité ad hoc boo xam ne riigu waxtaan lay daal di sabab diggante opposition be nguur gi ñu daal di xool pexe bi gën ci élection présidentielle bi ñu dem ko ndax nag fi mu toll nii mbir yi daal daal dinay jaxasoo professeur Babacar Gueye ci tribune yéene kaay ne coow li coow li moom moo di parrainage bi nañ ko waxte dund waaye coow li ci élection présidentielle bi dara andi ko lu dul parrainage bi nañu waxtaan ci sunu biir xool nag ne saytoo bu baax a baax fichier bi ndax nag faaw ña nga xam ne ñoo siq fichier bi daal di waxtaan ci seen biir ba am cab déggoo lu ko mooy élection yi man ni la coow dong lañ ciy daal di dund le mandat yéen naan kon en tout cas ñeen fukk ak ñeent rëkkale yi daal dina ñuy bind sàll ngaari lam tooro buur géde ne ko àtteel waxal mbaa ñu songu moom président Macky Sall def nopp tax wuyuwul tontuwul te gaa yi fa nu ñaabar ñaabari jëm bu ñu ko bàyyee day bari na ñoo xam ne fi mu toll nii du ñu bokk ci yi wala wat fu ko dajee naan kon fi mu ne ay waxtoo ci des ngir conseil constitutionnel nag daal di xam le dëgg-dëgg définitivement ñen ñooy bokk ci élection présidentielle 2024 bi yéen a kaay bi naan maan diggante Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye Ousmane Sonko ak may sa Wade daal seen jàpp dëgërul gars yi nag boo moytul mën nañ leen dàqe ci élection yi à tout moment 24 heures yéen kaay naan man en tout cas Cheikh Tidiane Dièye moom lépp luñ ko teg woon weddi na ko l'info yéen kaay naan Amadou Ba ma ko defal recours moom Cheikh Tidiane jee daal dina koy weddi ne ko nag ma masuma milité ci parti Pastef ba nga naan ku ñu seeyal mënatuma caa milité wal fu ko di jee naan kon en tout cas sax bokk moom xajam na réew mi ko di jee naan kon Pape Diop ay gaayam ci boppam ña ngi ko bëgg a roqee ci bopp parti bi lu toll ci fanweer ak juróom benn ci département daal di xam ne ni moom jiital assemblée nationale ba woon deful dindiwul daanaka dafa bàyyi partem bii di bokk gis-gis mu daal di nelaw fayal laaku mel ni ku ko seeyal daal di koy bàyyee ñeneen waa bokk gis-gis naan du ñu bàyyee Pape Diop mu rey suñu parti soo moytuwul nag ci daal di beddi Pape Diop daal di koy génnee ci parti bi la ñu bëgg a jëm tribune yéene kaay jox kàddu ànd jubbanti bokk gis-gis ñuy joxoñ ña nga xam ni ay lobi la ñuy def ñoo xam ne ay coxeur lañ ci wàllu politique di waxaale fu ñuy dugg fu ñu dul dugg di leen xamal ne du ngeen samp seen ndënd wala samp ay ndënd ànd ba heure bii dara desul lu dul dem ci ay élection ngeen fegg yaakaar yi dem ne Amadou Ba ngeen di jàppale war opposition war sénégalais gaaye naan nag fi mu toll nii ña ngay xaar ña nga xam ne ña nga fas yéene nag dem song Amadou Ba ne moom la ñuy jàppale sénégalais yi xam dëgg-dëgg ñii nag yan façon nit lan libération yéene kaay naan kon en tout cas Colin Faye du nitu Sénégal dàqe nañ ko Sénégal fast track ñaari mandat de dépôt tegu ci ndoddam ñu daal di koy effacé daar daar ministère de l'intérieur génne arrêté daar daar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre lañ ko ndànk ca kaso ba transféré ko dik ay agent AIBD daal di koy escorté dugal ko ci roppalaan sànni Paris ay avocat am yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal sax yëgunu woon ne génn na réew mi ba ñu koy jàpp moom Corinne ñu ñu ko jàppandooloon El Hadji Baro Malang Mané Ibrahima Manga Ousmane Tamba ak Benoît Sambou ñoom ñëpp ñi ngi ci kaso moom dem na ñibbi 24 heures yéeni kaay naan man boobu ce diwaanu Kolda ci bassin bu anambe ña nga xam ne ñoo fay bay ceeb day daal ñuy mer ba futu ndax jàpp na ne ñi ngi dund jafe-jafe xam ne waroon nañ am toogaanu ñaxtu dañ leen ko aaye ñu doon ñaxtu agression yi nga xam ne ñu ngi koy dund fitna yi nga xam ni moto yi ak woto particulier yi ñu ngi leen koy teg ci jël seeni client Walf ko dajee naan kon Sénégal ci boppam a bari fitna lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri junni ci doomu aadama daal di nañ leen di dalal ci maison de justice yi ñuy man teg teesante waxtu woo vox populi daal di may xamal ne Sénégal gannaaw ab saytu gu ñu def gis nañ ni mooy juróomi réew Afrique boo xam ne moo ëpp li mu tëj ay taskatu xibaar gannaaw Érythrée Égypte Éthiopie ak Cameroun gis nañ ni Sénégal